non loolu erreur du fa am gis nga ñoom boo leen laajee boobu ba léegi gis nga lii bu leen leeree ni du ñoom dañ war a def seen plainte ex laay wax dañ war a taxaw def seen plainte leeral mbir mi ay ma jamal ak ay seex xiirim ak yooyu ñorunu nit da leen wax ba gars yi nit ñi yor na preuve gis nga weddi tuuma du ragal seetal sa der la ñoom dañ war a setal seen der gis nga Ablaye li ñu fi wax nii teewriwul gars yi sénégalais dañ bëgg lu leer parce que li leen wax dafa leer ay papier yu leer a si nekk li tax nag mën a gun si sori am na koo xam daa am lu ko doy instant bi te ñoom ñoo fi nekkoon ni Sonko du dem fenn du dem fenn mooy lii mooy laa nee na ñoom ñu ngi si dernier réglage bu ñuy yéeg ku leen sànni loolu laa dégg mu wax pour duñ fay ñi yéegunu puusunu paasunu yéegunu mais nag euh, góor a góor góor fu mu toll nii euh, APR yëngu na ah. ndax déjà seen candidat bi Amadou Ba à l'unanimité ñëpp d'accord ñu ci moom mais dafa mel ni aussi jour bi ngeen jotee gars jotee information plan B bu Pastef fi bi coow li bëriwoon na ci. non ñoom ñoo fi indi coow rek ñoo takk seen baas bu ne mel ni ko am làmb foo dem fekk la ñu takk Pastef di naxeek di nangam di def ay ay xaw naa leen koy wax. lu ne def naan kese pour si parrainage yi comprendre ba léegi ñoom ñooy wax ñun te bu ñuy wax si justice ñoom waroon wax parce que ñoom justice bu leen àttee bu leen bu leen àttee lu leen lu leen ñor rek doo leen dégg ñu wax mais bu leen àttee lu nga xam ni safaan la rek da ngay génn ñu naan justice bi dëgërul justice bi dañ ko corrompre justice bi dañ ko nàngam te doo ko génn doo ko déggee si waa APR mukk. da daan dañuy jàll suñu deuxième question ñu gis ni aussi coow bari na benn information génn na fii maître Moussa Diop dafa def conférence de presse génne ay documents yu wan na ne que euh, benn exploiration maanaam ñu gëstu xool nag jamaa am na si suufu Sénégal génn na fi te en 2016 te Aly guy Ndiaye moo représenté woon état du Sénégal.